asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communique bi bàyyeekoo ci ministère de la santé et de l'action sociale tey altine fukki fan ci weer août 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj lim ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaari test yi yu ñu def téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci juróom-benn fukk ak ñeent ka contact am nañu benn ka importé mooy bi jóge bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu jas am nañ ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ka communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi te xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag Ziguinchor am na ci fukk ak ñaar Mbour am juróom-benn Dakar Plateau am ñeent Géejawaay am ñeent Bignona am ñett Kaolack am ñett Mbaaw am ñett Rufisque ñett Bopp ñaar Derklé ñaar Xombol ñaar Liberté 2 ñaar Wokam ñaar Parcelles Assainies ñaar Patte ñaar Rue Ouagane Diouf am ñaar Castor am na benn Diamniadio benn Fann benn Gibraltar benn HLM am benn Joal am na benn Kaffrine benn Kédougou am na benn Kolda am na benn Liberté 4 benn Liberté 6 am na benn Médina benn Sangalkam benn Point E benn Thiadiaye benn Tivaouane am na benn Richard Toll am na benn ak Tambacounda am na benn fanweer ak juróom-ñett si ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde ñeent fukk ak juróom ñaar ak juróom ñeent fukk ak juróom ñu ngi réanimation ñeent malade génn àdduna ci bësu démb dibéer juróom-ñeent fan ci weer août ñeneen ñi des hôpital wala ci loxo docteur yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaabu njëkk bi senegaal wàññi na fukki junni fukki junni ak benn ak ñetti téeméer ak fukk ak ñaar ñi xam ne jot nañ ci doomu mbas mi ci ñooñu juróom-ñaari junni ak ñett juróom-ñaari junni ak ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk wér nañ si ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla jéggal leen te xare leen àjjana mu ngi ñaanal ñi des hôpital tamit yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère la santé de l'action sociale mu ngi ñaax askan bi ñu gën a sàmmonte ak kàddu yi ñuy digle bës bu nekk ci ñooñu nag ñu ngi wax mbirum masque bi toujours masque bi masque bi masque bi dañ ko war a sol ci anam yi ñu ko waxee masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan nit ki da koy noonu la koy téye suy wax sooy wax tamit doo dindi sa masque sooy sëqat tamit doo dindi sa masque loolu la ñu digle ñu sàmmante ak kàddu yooyu ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam.